actu commenté bi di fàttali nekk ñaareelu pàcc bi daañu dalal soxna Maimouna Ndour Faye euh, ñu waxtaanee li nga xam ne mooy actualité bi aywa actualité boobee sax dañ ciy des Malick Thiandoum démb gis nañu suñu ñaar naataangoo euh, ñu tudd seen tur ci wàllu yoon euh, directeur de publication bu la tribune moom démb téye nañ ko laata ñu koy bàyyi ci guddi gi mu ñibbi këram directeur de publication bu le quotidien tey Euh, naka noonu itam euh, euh, la tribune ak seen dir pub bi nga xam ne itam démb bàyyiwaat nañ ko Malick tey jii ñoom ñëpp dañ leen convoqué ñoom ñaar ñëpp ca de recherche. ñoom ñaar ñëpp convoqué nañ leen section de recherche loolu yi tamit dafay wane rek ni le monstre bi nga xam ni moom la ñu doon dénoncé ci régime bi passé dañu fogoon ni dee ndekete da doon nelaw te yeewu na. et le réveil est vraiment douloureux pour journalistes yi ndax démb pap Moussa Traoré du pub bu tribune euh, yàgg na lool fële nga xam ni moom moo di section de recherche ba vingt heures ñu ngi ko doon auditionné après la jot information comme quoi euh, placé nañ ko en garde à vue mais ci guddi gi la ñu mujj nii libéré nañ ko sur convocation tey ci neuf heures lañ ko woowaat ki nga xam ni mooy Mohamed Gueye du pub bu quotidien également convoqué nañ ko niki tey euh, loolu nag dafay wone rek ni. li nga xam ne moom lañ doon xeex démb ak bërki démb euh, moom moom la ñuy continuer di xeex par principe tey jii la liberté de la presse du lu nga xam ne dañ koy négocier euh, le toute tentative de bâillonnement ou d'intimidation nu doit pas passer warul jàll lu tax warul jàll moo di ni tey presse bi dafa nekk rempart ci li nga xam ni moom mooy euh, démocratie ak ci réew mu mu mënti doon dafa am rôle bu nga xam ne tey moom la ñu war a taxawee muy d'abord informer waaye am na rôle bu nga xamante ni mooy sensibiliser et conscientiser les masses euh, loolu nag waruñu ci jóg benn yoon euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy journalistes yi seen liggéey la ñuy def lu nekk actualité mënuñu tere ñu traité ko lactualité actualité moom moo nekkoon affectation général Kanté loolu duñ ci wax. effectivement wala dañoo war ni patt ni pattiral hmm. non les gens vont en parler lu nga xam ne tey dafay def actualité ak fu mu mënti doon dinañ ci wax. Hmm. maintenant euh, on nous parle de de de de de de de de de sûreté de sécurité de défense. ce sont des professionnels de la communication ils sont conscients xam nañu le Rubicon à ne pas franchir quand il s'agit de, de de défense quand il s'agit de sûreté ou de sécurité quand il s'agit de, de d'informations euh, estampillées euh, confidentielles am na lu fi xewoon ñun ñëpp dañ ko dénoncé woon mhm. ci jamono yi passé yàggul yàggul yàggul bi ñuy jàpp Pape on avait tous crié au scandale. Mm-hmm. bi ñuy jàpp euh, euh, euh, bi ñuy tëj Walfadjri. Mm-hmm. les gens s'étaient mobilisés. barki Dembo Ndiaye bi ñu agressé suñu may sister Maïmouna Ndour Faye gis nga rassemblement bi nga xam ne moom la journaliste yi def mhm. su le théâtre des opérations suñu sœurs yi nga xam ne dooroon nañ leen jàpp leen la presse a payé un lourd un lourd tribut mhm. ci li nga xam ne moo fi xewoon barki Dembo Ndiaye mhm. ñi nga xam ne tey ñoo nekk au pouvoir la presse a joué un rôle fondamental ci li nga xam ne moom mooy changement de régime bi fi am fàtte xaju fi fàtte xaju fi Euh, Ousmane Sonko l'opposant di wax ne la et est ailleurs nañu bàyyi Pape Alé Niang loolu démb la mm-hmm. tey jii Pape Alé moom la ñu teg ki nga xam ne moom mooy DG RTS ñu koy souhaiter tout le succès du monde. Mhm. parce que succès mooy suñu succès échec am mooy suñu échec. Mhm. te dafa bokk ci ñi nga xam ne ci benn moment dafa taxaw jàmmarloo ak régime bi fi nekkoon di wax li nga xamante ni ni moom la nit ñi jàpp ni moom mooy dëgg. Mhm. donc euh, dem nañu tey ba loolu ñu foogoon ni ci rupture bi lay bokk te daf cee war a bokk. daf cee war a bokk il faut pas continuer li nga xam ne moo fi xewoon ñu xeex ko tey ba euh, fal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mhm. ak ñoom Ousmane Sonko je mhm. pense que tey loolu waruñu ci delluwaat mhm. prison yi feesoon dell ak ay nit ñun ñëpp ñu taxaw di di xeex di wax ni ay détenus politiques lañu. ba tey am loi d'amnistie am on a mis la pression donc tey cette presse là mënoo ko boddi mënoo ko bund xataal mënoo ko xëbal li nga xam ne moom la premier ministre wax démb ci euh, sorteem boobu. Mhm. Euh, amuñu compte bu ñuy rendre euh, à un journaliste ou bien a aux politiciens mhm. au peuple rek la ñu war a rendre kon xanaa journaliste ak politicien mhm. bokkuñu ci peuple bi <laughs> am ci beneen monde la ñu nekk mm, mm, mm. on est tous du peuple et on fera notre travail mm-hmm. maintenant li nga xam ne moo xew foofu laay daaneele mm-hmm. moo di nii tey journaliste mm-hmm. nga convoqué ko ay police ak ay gendarmerie di ko tëj yow da nga koy yokk doole Mm-hmm. bu fekkee da nga yaakaar da wàññi dooleem da ngay yokk dooleem. Mm-hmm. bu fekkee da yaakaar da wa da noppiloo presse bi da leen di gën a wax loo. Mm-hmm. tey journaliste li gën a ci moom. mooy ses pairs jugé ko. mooy euh, tey ñi nga xam ne ay journaliste professionnel lañu. woo Euh, euh, euh, yedd la wax la ni li nga wax waroo ko wax li nga bind waroo ko bind fi nga teg sa tànk du foofu dëppawul ak éthique dëppantewul dëppawul ak déontologie dëppawul ak professionnalisme bu ñu la ko waxee loolu daf lay dégrader daf lay décrédibiliser ci sa kanami ñooñ kon nañu bàyyi cap ak CORED ak ñi nga xam ne mooy organe yi nga xam ne ñoom ñoo war a wax ci journaliste yi ñu bàyyi leen ñoom bu fekkee journaliste teggi na yoon ñu teg ko ci yoon loolu moom mooy loolu teguwul ci yoon maintenant mhm. mbajum kanam borom moo koy fajal boppam mhm. taman lii ma gis nii euh, foofu laay daaneele jëmul kër il y a une bipolarisation extraordinaire de la presse mhm. dafa mel ni dafa am benn presse euh, pro gouvernement ak benn presse anti-gouvernementale mhm. non on est tous de la presse mhm. soyons unis et solidaires mhm. parce que lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa amee kër ñun ñëpp on est en danger voilà Malick euh, merci beaucoup euh, Mortala ñu des ci actu commenté bi ak li ñu wax démb muy euh, taskatu xibaar ñaar yoo xam ne dañ leen a woo fële ca section de recherche waaw Malick yaramam daa tàng xam naa moo tax tey mu yéex a daaneel mais mm-hmm, mm-hmm. Euh, quand même c'est le sujet qui intéresse mm-hmm. parce que quand même euh, dañu nekk ci métier boo xam ni euh, ku ci nekk da nga koy def selon tu l'entends en fait Euh, soit ça marche soit ça casse. malheureusement ces temps-ci gis nañ ni presse bi li jotoon xew du temps de Macky Sall ñuy convoqué ay journalistes ak yooyu loolu mooy ñëwaat te ñi fi nekk dañu woote rupture. Euh, rupture nag duñ ko wootee ba pare. di mm. def des actes yoo xam ni di poser des actes yoo xam ni. Mm. ñi fi nekkoon moom lañ doon def. Mm. Euh, pour man convoquer des journalistes di leen intimider bokkul ci euh, rupture bu ñu woote. Mm-hmm. parce que rupture bu ñu woote day jox chance les journalistes ñu wax li ñu xalaat. Mm-hmm. day jox chance les yu ñu wax. Mm. ñu bind également information yu ñu am. Mm. maintenant dafa am ay façon weddi boo xam ni yow mën nga ko weddi mën nga bind démenti mën nga bind euh, disons euh, euh, droit de réponse mm-hmm. dafa am ay ay ay étapes yoo xam ni euh, dan ko may ki nga xam ni journaliste bi dafa bind ci moom te. moom mu jàpp ni du dëgg. Mm-hmm. mu répondre muy démenti muy droit de réponse mm-hmm. mais bu fekkee nag Euh, da nga allergique à la critique généralement yu mel nii lay jur parce que da ngay jàpp ni képp ku bind dara walla mu wax dara day jéem a déstabiliser le pays te man quand euh, loolu d'accord ma ci li ma d'accord mooy ñun journalistes yi fi mu ne nii dafa am lu ñu wër mooy une division profonde dans nos rangs parce que man démb ba ma déggee ay yenn journalistes yi ñu naan ces journalistes corrompus entre guillemets. Mhm. parce que noonu la ko waxee. Euh, dañ leen a war a jàpp parce que dañuy déstabiliser le pays j'ai tiqué dama ni mais ñii xanaa dootuñu journaliste. ak euh, surtout nag mu am ci ñoo xam ni dañu liggéey sax ak euh, ñi nga xam ni ñoo am problème yi. pour man loolu. Mhm. day wane division bi am ci sunu biir. Mhm. day wane ni presse bi. Mhm. Euh, benn genre manichéisme moo fi nekk. Mhm. boo waxee lu arrangé euh, ñoom Sonko ñu ni ah moom de mi ngi def liggéeyam. Mhm. comme ni mu waree. boo waxee safaan ba ñu ni moom de ku bon la li la fi nekkoon di wax sax démb. pour man pour man manichéisme boobu. c'est dangereux dangereux pour notre pays. il faut ñu may nit ñi. boo bokkul ak ñoom xalaat sax ñu wax li ñu xalaat nga nangul leen ko. mais eh, di intimider des journalistes di leen wóolu ci ay euh, tribunal wala ay. Euh, section de recherche. Mhm. pour man c'est la dernière chose à faire. te il faut rectifier pendant qu'il est encore temps. Mhm. parce que ces gens-là leur place nekkul section de recherche. Mhm. mi ngi ci dans les rédactions. maintenant ku d'accordal ak ñoom li ñu bind. tu fais un démenti ou un droit de réponse. mais on en a vraiment assez. des convocations euh, tous azimuts. muy noonu Chérif euh, bi ñenn ci journaliste yi. Euh, tout à fait c'est malheureux quand même qu'on en soit là au Sénégal. ci atum 2024 ñu nekk fi gis nga fi ces dernières années déjà boo jëlee euh, rapport bi nga xamante ni sans frontières daf koy publier gisoon na Sénégal ni muy delloo ginnaaw. Mm-hmm. ci ay yoo xamante déjà régime bi fi nekkoon am na ko fa ci tëj ay médias. ci convoqué ay journalistes. Mm. bu fekkente ni comme Mor l'a dit ak Malick aussi répété ko. Mm. journalistes yi bu juumee dans l' de ses fonctions. fii mm. am nañ fi ay organes yu fi nekk yoo xamante ne régulation boo xoolee Macky Sall sax bi ñu fiy créé. Euh, CORED après tribunal DPR. ñu ko doon lancé première équipe ba fa nekkoon. lui même en tant président il disait que man mi sax en tant président léegi bu ma sosolatee wala leneen damay ñëw boole si. parce que rappeler à l'ordre ñi nga xamante ni ñooy journalistes yoo xam ne dañoo jàpp ni dañoo am jafe-jafe ak li nga xamante ni quand même mooy éthique ak déontologie dans l'exercice de leur métier li am solo am solo mooy ñu renforcer pouvoir ces organes là ba nga xamante ni nit ku citoyen ba bu jàpp ni journaliste bi li mu bind amut bu fekkante ni euh, affaire général Kandé bi la bu dee amut je pense que comme ni waxee armée déjà am na ñu leen fi nekkal ñoo xamante ni ñoo yor seen cadre muy dir pa ñoo fi mm. nekk donc loolu benn benn la lui même premier ministre bu fekkante ni Ousmane Sonko jàpp na tudd nañ ko ci te sosal ko lui même man am na droit de même def def plainte mu daal am nay avocat wala nangam yoo xamante man nañ fa nekk mais bu fekkante ni ci wàllu répression wala alkaati li mu doon wax fii ci li fi passé erreur yi mooy ñu banaliser sax ces institutions ñi ngi ko doon wax boo jëlee ay section recherche ay dig dem na ba Sénégal léegi c'est banal. Mm-hmm. alors que bu njëkk daawoo ko sax dégg lu lu bari parce que mm-hmm. daawu leen utiliser wala nanga mais ces dernières années li leen utiliser utiliser goo xamante ni gis nañ aussi c'est c'est contre-productif parce que amul benn njëriñ bu doon répression mooy tax nit ñi changé wala nangam Sénégal changé na parce que ces dernières années kaso yi gis nga ñaata nit ak ñi nekkoon et nekk ci contexte boo xamante ne nan benn réforme justice yu mel ni yu mel ni jar xoolaat ba nga xamante ni loolu am ci maintenant nag ay du tane nit ñi def seen liggéey li am solo ba am solo gars yi ñu ngi wax ay bipolar bipolarisation mais na nit ñi di rester ci ay principe ba nga xamante ni sa wax yi démb faadi ak sa wax yi tey di méngoo buñ la vaaree tamit doo am loo xamante ni di nga ñëw muy muy gênant ko et c'est vrai que comme ni ñu ko waxee parce que bu xoolee l'actualité même le premier ministre dans sa sortie Malick mi ko doon rappelé du ay compte bu muy rendre ay journalistes pense que il n'a pas de ni dañ la fal nga ne Sénégal yi fal leen ma ngir ma fii su coppite c'est liggéey mais c'est le premier ministre moom mooy doxal li nga xamante mooy action gouvernement bi donc ñëw ci la bokk mënuma mënoo ko ci génn loolu mooy li nga xamante moom moo ëpp solo am na ñoo xam nag dañuy fàttali ñoom seen position démb mais lu baaxul man jarul roy foofu aussi il faut que ñu ci sensibiliser nit ñi mm-hmm. ñuy roy ci lu baax encore une fois des ci li nga xamante mooy principe yu tax fii kenn jóge fi ngir déstabiliser Sénégal parce que Sénégal bu déstabiliser ku ñun foon jëm. Mhm. ci dëkk bi lan dëkk des zones donc mhm. responsabilité boobu comme ni ñu waxee liberté bi dafa ànd ak boobu responsabilité. Mhm. et je pense que xam nañ ko ba nga xamante ci wàllu ay coppiteek réforme yi nga xamante ñu koy def ci yu bëri ñu xoolaat ko xam naa ci ñoom mooy a euh, di neenal li nga xamante bu am solo bu muy jouer déjà déjà ci démocratie ci liberté yi mais aussi ci yeew askan di leen informer maintenant nag nekkuñ fi ngir ma sàmba ngir ma dem dañ nekk ngir dëgg euh, ku jàpp ne nag presse da nga koy def sa poche wala nga yóbbaale ko wala mu nekk ay benn wi mhm. je pense que tu te c'est ça merci beaucoup Cheikh Tidiane oui mhm. je pense que euh, foog aussi euh, ñu ñu dal parce que li ñuy wax presque j'ai l'impression que des fois on surestime ce quatrième pouvoir kii euh, la presse parce que mënoo jàpp ni benn journal bind na benn information boo xam ne dafa sensible rek nga ni que non kii dafa mu bëgg a déstabiliser hmm. que tu euh, maanaam euh, mets en branle la machine judiciaire ngir noppiloo ko bon je pense que loolu jaru ko fii peuple bu mature moo nekk Sénégal hmm. les gens savent distinguer li wax xaw la graine de livret lu mhm. baax ak lu baaxul xam nañ ko mhm. information bu ñu teg ci une journal newul nit da koy gis rek gëm ko. Mhm. ñëpp dañoo am xel. Mhm. fi multitude de journaux ñoo fi am. ku nekk mhm. dafay bind. ku nekk lu muy bind ku nekk su xoolee am na lu mu koy analyser. et je pense que loolu aussi mooy démocratie. war nañ leen ko nangul. journalisme nag c'est vrai que dafa ànd ak responsabilité. c'est pas parce que journaliste nga que euh, am nga droit def lépp lu la neex. mais comme ni ñu ko waxee am nañu ay kuréel yoo xamee ni. journaliste gis nga un vrai journaliste. liggéey bi ñu sanctionné ko. Mhm. looloo gën a métti foofu nga jël ko yóbbu ko kaso. comme li la moo doon wax sànq suñu soo ko wala Malick soo ko yóbbee kaso da nga koy gën a dooleel. Mhm. alors que say père suñ la jëlee tegaat la ci yoon ça c'est une humiliation mhm. yéen ñii dund ngeen ko seen professeur professeur su la woowee euh, di la di la jubbante ci lenn da rus da ngay am gàcce euh, au lieu que keneen di la ko def moi je me que nañu Euh, nu mu tuddati euh, retrouver la raison. Chérif aussi mi ngi koy wax sànq le le premier ministre quand il dit que on n'a pas de compte à rendre aux journalistes et aux hommes politiques. il est le pré bon il est le premier ministre. Mhm. Bassirou Diomaye Faye est le président de tous les Sénégalais. Mhm. nekkuñ. président benn parti Sénégal boo xam ne ñooñu la ñu war a rendre compte soo nekkee mm-hmm. président da nga nekk président réew ku mm-hmm. jub kee ku jubul kee ki nga war a jubante ñëpp yaa nekk seen président euh, ba pare nag nga euh, teg lépp ci yoon je mm-hmm. pense que on ne demande que ça ba pare nag jéem a jóge euh, ci climat bi nga xamee ni moom la ñu nekk parce que ci climat boobu ñoom la ñu faloo Sénégal deux ans trois ans ci ginnaaw liggéey amatu fi woon il un climat trop ñu jóge ci loolu dem ci ay élections yu jaar ci yoon ba ñu fal nguur gu bees je pense qu'on n'a pas besoin de revivre les mêmes choses bipolariser la presse bipolariser la population on n'a pas besoin de ça moom njiitu réew mi ci boppam moom xam na ko ba prise de parole bu njëkk bi ñu ko falee lan la wax réconciliation nationale je pense que nag réew ci Euh, climat bu mel noonu nga koy mën a liggéeyee euh, mu jëm kanam mais pas ci euh, climat bu délétère boo xam xamee ni je pense que kenn du am jàmm ça c'est pas bien. jërëjëf merci beaucoup Cheikh Tidiane Chérif Mortal ak Malick Thiandoum sept heures jot na ba tegal ñaar fukki simili ma fàttali ne wax li ñuy waxtaanee actualité bi daañu ko waat ci ñaareelu pàcc bi ndax Maimouna Ndour Faye PDG 3M Universel. membre du SADEPS e moo nar a nekk ganu Chérif ñëw jàll ci un jour au Sénégal un jour dans le monde ba tey ci actualité ak presse bi.